tey ji buñ nee programme am na Sorano théâtre wala nàngam nit ki àtt na génne ñaari junni paase ko pour dugg bu duggee bu ñu suñu wayee li nekk ci poosam lépp mu yekk ko jox ko taalibe bi yelwaan day bu koy sarax ñaari dërëm la koy sarax wala ñett ku muy nag boppam boppam dong lay nag boppam la lootam xaalis boobu mu liggéey moo xam ne wala léwut mu def ko ci poos daañu ko laaj ëllëg na ko amee ak a ko ñàkkee bu ëllëgee dana layoo xaalis boobu ci bopp dana layoo layoo ak suñu ko dara nga dem ci bépp bunt boo xam ne buntu pola dañuy fo ca biir dangay ngay booxante wala ngay ran buñ ne marché bu mag marché capital am na ñoo xam ne ñu bari bu ñu añ sandwich dañuy jënd dañuy ran ci naaj wi du dugg moo ne de buñ ne